fali asi kor jojonde ah jang jangat no jang jangat no bomokele bersaudara ah wayne ya yo way de bo sa jaay yu go fali yaasi kor jojon salam Alaaji Matar Gise gaa yi jóg nañu gaa yi jóg nañu gaa yi jóg nañu gaa yi nag door nañu lam tooro mu ñëw koso door nañu lam tooro mu ñëw comme ni nga ko waxee bi passé moo raw waane koso na fi daw na topp ko lam moo nekk ci kanam ak maam Soda Jaw lam lam tooro lam toor gën na Aliou Ndiouk moo ko moom waa écurie Ndiouk ñoo ko moom alaaji Matar lam toor na waaye ndey ju baax ñëw na en deuxième position maa ngi gis en troisième position Nafi lam tooro na ba léegi ndey du baax dikki Matar gis lam tooro génn na lam tooro nag ñu yi ndax nii la ko defee woon dimanche passé ndax dana ko confirmé ma nga tëgmal ci kër Mbaye Diouf jagi dëgmal fi nga xam ne mooy terrain basket bi waaye mi ngi nii fana départ woon koso lay lamtooro di ñëw waa lamtooro lamtooro ñu ngi ñëw na lamtooro lim leen raw jaay doo tut lim leen rawee jaay doo tut zooka bi mi ngi foo ci kaw fas wi zooka bi mi ngi faaw ci kaw fas wi lamtooro lim leen rawee jaay doo tut li ngi félicité écrit njuuji ci euh, lamtooro mi ngi ci ñëw lamtooro mi ngi noon di ñëw ñu ngi félicité waa écrit njuug bu baax lamtooro ñëw na la raw na am na deuxième victoire Tidiane nuyu naa la tey ñu dawal li nga xamante ni mooy troisième journée tey mu tombeek troisième journée nga am sa trois victoire ci écurie Mbët tey sa fas yi nga xamante ni mooy euh, Lamtooro dimanche ba la ñu génn daf leen raw tey mu ñëw confirmé tey lan nga yëg ak lan ngay wax. bon sant suñu ñaari waajur julli sant Seydina Mohamed sant mboolem julli sant ñëw ci course bi ñëpp di mbay ndam li nag mboolem julli képp ku bëgg fas ñu way may kontaan naa loolu ndax kër gi man ñi dama leen bëgg a rawal grand chel ta nga ñi maa jox loo xam ne il faut teral leen sama fas man tan dañoo namoon course ñu ñëwaat ci course dañuy sant rek course moom ku nekk xam na ne faw noobal la booy ñëw da ngay seet la nga gën a bëgg nga sol ko ñëw ndax xew la ci ñun ñun course rek la ñu am di ñaan jàmm rek ci fépp nag ah danga ma ci fekk bu baax a baax a baax mais cuuj la bokk fii lu yaay yëpp ma yeedu moo la kub la baay ma yeeda moo la gulu liggéey yaa ko moom yu maa raw kub maa waj ngi nii di takk groupe 3 bi tey ñu ngi fii ci troisième journée ci hippodrome bu mag bi Ndiaw Macodou Diop tey nan nga gisee groupe 3 bi tey ñu war daw 2200 mètres Cheikh ñoom nag tubaarkaal dañoo nekk fukki fas ak ñett war a daw ci distance deux mille deux cent mètres ay fas lañu yoo xam nag ay nattaangooy fas lañu kenn ku ci nekk danga ngaa mën a da ngaa mën a raw waaye pour l'instant daal ki nga xam moom la ñuy tabb favori mooy Miss Yacine ndax Miss Yacine nag euh, moom moo leen rawoon dimanche passé tey jii ndax dafay confirmer wala dañuy nangu xa dañ ko dañuy jël dañuy jël couronne bi ci moom loolu ci kanam lay leer waaye daal am na zooke te zooke bi diggante na ak moom ki nga xam mooy Mampemel dafa def si course de rente mais attention moom ki nga xam ne Ndeye Anta ah tey moom it bëgg naa def jaloore ndax it bi course yi ubbee moom moo moom moo leen rawoon te yii nag dañuy bàyyi xel ki nga xam mooy Touba Belel course de rentrée la def mooy numéro 2 bi nga xam ne Sidi Saw moo ko war mu mu ngi nii di ngël di di di di ngëlamu loo xam dafa jéb benn tànk ginnaaw tànk càmmoñ di jéb bi nag tubaarkaal moom la olof tuddee jéb bu wéq say noonu ñoom nag fukki fas lanu ak ñett Matar Gisee war na distance 2200 mètres que le maire gagne waaye ci fair play rek mm-hmm. ci li nga xam tubaarkaal la moom moo di moom moo moo moo di fair play ak li nga xam ne moom mooy kenn ku ci nekk li nga am ñu yéene la ko Momar Dieye nag tubaarkàlla fas yi mu war ah mooy baax dë kooku la ñu Babacar Mar di jox noonu baax dë ngi moom Momar Dieye ko war moom nag tubaarkàlla daf may saf xaatim waaye ñoom ñaar ñoom ñaar du ñoo nduróo rek waaye duñ benn daf may saf xaatim baax dë attention attention 16 ba attention 16 ba euh, Fallou joxaane ko moom nga ni daf la nduroog daf may nduroog taw ki nga xam moom moo di xaatim euh, euh, mu di xaatim xaatim la may jox ay fas yi wàllu wàllu naissance su peeram moom nag tabarkàlla euh, moom moom moom moom baax de ki nga xam moo ko jur mooy Canacros Canacros moo ko jur waaye mu doon mu doon daanaanu étalon boo xam ne ay fasam ñi ay doomam ñi ngi def preuve fii ci hippodrome Ndiamb Kodou Diop ay doomam ñi ngi def fii preuve ci hippodrome Ndiamb Kodou waaye Cheikh Ndiaye groupe 3 bi tey boo ma ci doon wax tey ndax bi ñu génnee dimanche Miss Yacine moo fi raw tey ñu daa mel ni gisuñu ko fi tey mi ngi fi tey mi ngi fi est-ce que tey. non léegi nag loolu koso dañuy yónni waan neen rek ñu xool fan lay mujjee ki bëtam Miss Yacine waaye daal na xam ni am na prétendant bu sérieux mooy mooy mooy Omar Bao na am na xam ni am na prétendant bu sérieux mooy Omar Bao am saxul na ko bàyyi xel na bàyyi xel ki nga xam ni tamit mooy mulaay parce que mulaay fas la boo xam ne tubarkalla moom it lu mu jàpp du ko bàyyi koso koso mbay lii daal mooy powum noble bi lu Mame Pemel dafa des ci course de rentrée. Mhm. kenn ñëw war a ñëw wane boppam tey. Mhm. écurie bu mag nag ngemb ko muy écurie Maktoum. muy ndax gis nañ ko daaw avancement bu mu fi def. tey mu ñëw def course de rentrée tey est-ce que dina yomb. léegi nag problème bi mooy ñoom dañoo engagé ñaari face est moom dañ koy def lièvre wala moom dañ koy banque ci groupe bi mu rawante rawante écurie loolu ci kanam lay feeñ ba tey parce que stratégie la te leen lu nekk mën naa am ci hippodrome bi. mais daal 3 ah gars yi jóg nañu gars yi jóg nañu ibbi nañu box yi Forza door nañu ndayanta deer mu ñëw ci kanam ndayanta deer ñëw na ci kanam ndayanta ñëw na ci kanam koso waane gis naa ki nga xam ne mooy na la numéro 5 baxru dem na waane la numéro 2 Touba Belel topp na leen koso peex nday anta moo génn moo nekk ci kanam ba léegi nday anta moo

waye ndayante der lim jàppoon bàyyiwu ko waaye dawal nañu fasi dawal nañu fasi ñom ñep ñëpp ñu ngi ñew nday antam mi ngi nek ci kanam ba legi ndayante mi ngi non di ñew waye gis na le numéro 3 mu lay laa gis numéro 2 le numéro 3 le numéro 10 maa ngi koy gis non mam Pamel mi ngi def avancement général waye le numéro 2 numéro ki nek le numéro 3 mo nek en deuxième position waye nday Anta Der ba legi mi ngi ci kanam aladji Matar. nday Anta Der lim jàppoon bàyyiwu ko. doomi Habibi Habibi la Louga loola jógee ña ngi ca case de tout petit ba waaye gars yi dawal nañu waaye dawal nañu Miss Yacine mi ngi taxaw quatrième position Gadiaga mi ngi tëdd rek mi ngi tëdd rek la ngoo ki nga xam ne Gadiaga yéeg na trop ba te bi gars yi dawal nañu oh deeru gars yi dawal nañu gars yi jàpp nañu ndeyante gars yi jàpp nañu ndeyante Moulay moo génn waaye Miss Yacine mi ngi troisième position mu mu lay mu lay moo génn wante Messias euh, entre DR mooy deuxième position Messias mi ngi en troisième position mi ngi noonu di ñëw dal ci kaw nday entre DR waaye ba léegi nekk ci kanam mooy mu lay monsieur Messias moo ngi noonu di ñëw alaaji Matar Messias génn na deuxième mi ngi ñëw Messias génn na waaye nag nday entre DR taxaw na deuxième position mi ngi nii di wiiri Messias Moulay moo nekk ci kanam ba léegi en deuxième position mu la euh, Miss Yacine la waaye day Anta mi ngi ci troisième position ba léegi Miss Yacine song na Moulay Miss Yacine song na Moulay Moulay mi ngi ci kanam ba léegi Miss Yacine ñëw na Miss Yacine Moulay Miss Yacine Moulay Miss Moulay Miss Yacine Moulay Moulay Miss Yacine Moulay Miss Yacine Miss Yacine Miss ra mi première Miss Yacine contente ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi réew ni benn la kenn mënu kaa xar ñaar te bu nee fas kusu ni saxir caam ñi xamul fas sax saxir caam lan xam muy suñu papa di suñu lépp amuñu fayam billaay wallaay koso maa yoo xamante nan avant fii di may wax ni yaay sama seere yàllaay sama seere may sant yàlla nag daaw damaa def saison bu ma neexul mais yàlla baax na mënuñoo toog ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te kun raw ñu nangu sa fas man d'accorduma loolu ndam li génnul Sénégal yàllaay may du loolu lan wax yàlla may na ma fasu mën a daw mais ñaan yàlla mu yokk ca kanam ñu ngi doon di takkalee trois ans ñu ngi doon ci biir paddock bi waaye maa ngi gis le numéro deux euh, talisman deux maa ngi koy gis waaye maa ngi gis le numéro sept liram maa ngi koy gis maa ngi gis le numéro quatre Thione Ballago Seck Thione Ballago Seck nag boo ko déggee xel yëpp day dem ci Wally Ballago Seck waaye Thione Ballago Seck boo ko déggee xel yi dina dem ci Momi Momi Momi Ballago Seck xel yëpp dina dem ci Mbaye Diène Mbaye gisóori mi jëmbaa mi nga xamante ni moo duppee fas wi nga xamante ni mooy Thione Ballago sekk waaye maa ngi gis leen maa ngi gis leen numéro 3 talisman 2 lii mooy li nga xamante ni mooy 3 ans yi nga xamante ni war na noo daw le numéro 7 bi mi ngi noonu lii lii ram waaye maa ngi gis euh, le numéro 6 ñal bantum senior maa ngi ko gis waaye kenn du maar xoolal maar maara nga ci kasaag yi maar mi ngi ci arne yi maar mi ngi xool mesure bi nga xamante ni ñu ngi ci ñu ngi koy takk ci fas yi ci kaw teg gi maar mi ngi xool ba xam fas yi du lii du ko déranger ñu ngi koy wàññi maar kenn du maar lu lu bëgg a feeñ rek woon ko maar maara nga ci arne yi maara nga ci kasaag yi maara nga ci teg gi ñoo ngi noonu di yokk li nga xamante ni mooy teg gi cay maar kenn moom lii nag jar naa bàyyi xel ci course ndax lii jar naa wane ci course dañ koy metre neng koy mettre deugali nak nag tubaarkàlla olof koy wax way étrier le tubab di wax dañ koy mettre pour mu baña empêcher manam genou genou bi baña empêcher fas wi dañuy xol ñaat te te li ko natal mom mom lañu natal mbolam fas bu fi ne ka bo gisé ñu dag ñu la di wo di jël karawaas yi di ko dagg dañuy bañ ñu door yaram fas ba fas di dag lolou duñ ko rafetlu ndax pom noble lañu yor dañu bëgg tubaarkàlla gën a discipliné ci ci ci sport yëpp poom noobu la da ngay dégg sa papa naan naar góor du sol mbubb du sol tubéy taxaw ñu wër ko loolu fas waay lii xoolal fas yu ma tiim xam lii lii c'est des waaye lii buñ ko defee ñi ngi félicité ñi nga xamante ni ñoo yor lii nekk si bopp seen déeb ñi ngi leen félicité mais takk nañ étiré yi escotché nañ ko wàññi nañ ko pour dimbali fas wi waaye lii lii fas rek ko man naaru góor la yàlla teral du sol mbubb du sol tubéy fu mu taxaw ñu wër ko xoolal maar mi ngi ci ardaya mi ngi koy jël xoolal maar ma ngi koy jël mi ngi noonu di ko jël waaye ñi ngi noonu ci ar ñi ngi noonu ci étiré yi waaye leen du fas waay leen naaru góor xoolal lii ñi ngi ci étiré yi ñi ngi nii di ko wàññi fu lii fas rek ko man taaru fas Seydina Muhammad fas la waroon Serigne Touba Xaadim Rasul bi muy dem tundu jéewal di jàkkaarloog Touba bi naaru góor la waroon bu jéem ñeent tànk ngóolamu la war jàkkaarloog Touba bi ñu rëkkat dajeeg ñoom tundu jeewal naaru góor la war xoolal lii étiré yaa ngi noonu ñu ngi koy mi ngi noonu di dem waay waay waay maar maar lu waay bëgg ci course ak lu waay bëgg ci xam ci course ak lu waay bëgg leeral na na na jàpp jàppal émission jàpp c'est le meilleur émission jàpp c'est bàyyi ko sëñ Muntaxa rek géwélu sëriñ Touba boobu yàlla guddal fanam yàlla yokk ko waaye nag Cheikh ña nga jëm ci départ ña ngi ci Reug Reug loo ba. gaa yi jug nañu gaa yi jug ga gaa yi jug nañu Arafat génn na Arafat génn na waaye taw ñoo na en deuxième position Alaaji Matar gis dara xewul ba léegi waaye Arafat dem na. Arafat dem na 19 la ñu waane wàcc nañ fa benn 18 yi ñoo na la tukki waaye Arafat génnaan na papa ñu nga ko war doomi jolof ma mag bi waaye tel tawféex nam defoon dimanche passé nee na ko tey Arafat doome fi ba tey loo wax rek dinaa ko suul ñu ngi ci terrain basket bi dëgmal 200 mètres bi tey bu ñu ñëwee dañuy romb dellu 1650 mètres génn waaye Arafat génn na papa ñu nga ko war doomi jolof bu mag bi Sidi Ndawang ci kaw waaye Jibi ko na ba léegi mi ngi ci waaye en deuxième position Tawfekh Tawfekh ñëw na ci kawam waaye maa ngi gis le numéro 14 Ngoné Ndaw ñëw na en troisième position euh, Ngoné posição ñëw na en troisième position waaye maa ngi gis a yi nga xamante ni mooy waxu buur le numéro 5 ñëw na ba Matar Gisé Arafat bu Jibi Ndiaye moo nekk ci kanam Arafat génn na doomi de minuit bi waaye Papa Gningue toog na ci li mu yor am nañu 1000 mètres ñu ngi ci case des tout-petits bi waaye lu ma ci jaaxal mooy tawféex nee na ko tey dooma fi ba ñooy ànd tukki àndaat nañ tukki tawféex Arafat aar waaw tawféex génn na. tawféex génn na tawféex génn na bopp tawféex génn na Arafat bañ ñoo Papa Gningue ko war. tawféex génn na Arafat génn na ba léegi mi ngi ci kanam waaye en deuxième position tawféex la en troisième position euh, membre Alaaji Matar diggante ver. ak Arafat ñoo ngi noonu Arafat a ngi noonu ci kanam ba léegi Tawfekh. ah Tawfekh génn na Tawfekh génn na Tawfekh génn na dawal nañu maam loo troisième position Tawfekh génn na dëgmal nañu terrain basket bi bu ñu ñëwee dañuy téye waaye Tawfekh génn na fas wi jaaxal na ma wu ci kanam fas wi ci kanam wala waaye Tawfekh génn na Tawfekh génn na attention les juges Tawfekh Tawfekh ah Tawfekh Arafat Tawfekh Arafat Tawfekh Arafat Tawfekh Arafat. tawfeex Arafat tawfeex Arafat. Arafat génn na Arafat génn na Arafat génn na tawfeex Arafat génn na tawfeex Arafat génn na tawfeex tawfeex Arafat tawfeex Arafat tawfeex Arafat tawfeex Arafat tawfeex Arafat. trois en tout cas daal troisième membre diggante tawfeex ak Arafat kenn mënu ko la jox résultat ndax ñoo tànnandoo ci tableau bi kenn mënu ko la jox résultat kenn mënu ko la jox. Arafat ñoo daanandoo ci kaw wax koso li ma yëg tey mooy damaa ñëw sama deuxième famille ànd ak Sidy Ndao transitaire waaye teewal fi Omar Bawo Signor teewal fi tamit kii di Tafa Fall gàddaay borom yaande jéen borom sutura yàlla yaanda mu ànd ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Fall Gouyaar di la wax kursu boo xoolee loose bi tey rek lu bari dala ciy jàngal ci àddina nan la la ciy jàngale maar le pro Baye Ibba dafi daan toog Bac dafi daan toog Souleymane gay daf daan toog ki nga xam ne mooy Papalo dafi daan toog Baye Bada daan fi toog tey la fi jëlee original yi du fi bàyyi ñun ñii kon li war nan rafetal suñu diggante nañ ñaan yàlla course yi fournisseurs yi ñëw nañ ñaan yàlla course yi sponsors yi ñëw nañ ñaan yàlla course yi prix yi yokk kenn ku nekk gis sa bopp amateur sooke propriétaire surtout reporter bi nga xam ne day bàyyi juddoom bàyyi ndeyam bàyyi ay bokkam ñëpp tiim leen di leen wax lu baax te ñaan yàlla xale yi nañuy rawante seen sago champion kenn mënu ko doon ci làmmiñ da dangay investir am patience am encadrement ba pare doo ko doon champion. ma ko cey maar la pro rëg-rëg loo ba bëri na loo xew gaa yaa ngi régloo bi régloo la gaa yi jóg nañu groupe 2 ba jóg nañu gaa yi groupe ba jóg nañu ñu ngi ci rëg régloo bi gaa yi jóg nañu set ñëw na ci kanam set ñëw nañu ci kanam.

Euh, euh, en deuxième position Mariam Da troisième position Mariam Da Mariam Da ñëw na ci kaw jamono baraka de génn na baraka de génn na baraka de baraka de génn na Mariam Da Mariam Da moo ñëw en deuxième position en troisième position jamono Mariam Da ñëw na deuxième position waaye na jamono dawal nañ ko jamono dawal nañu ko mu jàpp ki nga xam ne mooy Mariam Da waaye baraka de jiitu na leen nee leen maa ngi dem mi ngi ci mbay Mbaye Diouf Diagui dëgmal terrain basket bi ñu ngi nii def benn dank rek di ñëw tey ñu ngi def benn a rafet na o oh, Marème da taxaw na deuxième position waaye baraka de joke bi tëdd na baraka de joke bi tëdd na am na 1000 mètres moom xaw ma ko amul 1000 waaye baraka de am na 1000 mètres oh, am na de waaye li nekk ci tànk yi mi ngi dañ ci baraka de yàlla bu mu ko fakkastalu Marème de dawal nañu ko waaye dawal nañu jamono Marème de tee waaye jamono dawal nañu ko dawal nañu jamono dawal nañu jamono waaye dawal nañu Salimar dawal nañu Salimar gars yi dawal nañu gars yi dawal nañu waaye avancé nañu xaatim. avancé nañu avancé nañu xaatim avancé nañu jamono waaye barakatal ba rek bañ na xaatim mi ngi noonu di ñëw entre xaatim mi ngi noonu di ñëw xaatim barakatal ba léegi barakatal moo nekk ci kanam xaatim mi ngi ñëw ci kawam. barakatal génn na waaye dawal nañu xaatim. Mamad Dieye dawal na xaatim gars yi dawal nañ ñu ngi ci El Hadj Touba bi oh xaatim génn na doomu tuba tey bi génn na Mamad tëdd na doomu tuba tey bi génn na Mamad tëdd na doomu tuba tey bi génn na ak la faafu xaatim génn na xaatim mi ngi noonu jox na leen en deux xaatim mi ngi en première position xaatim écriture mi ngi noonu di ñëw waaye xaatim papis ñaa mi ngi noonu di ñëw alaaji matar gi oh xaatim génn na Mamad Dieye tëdd na doomi Kébaay Dieye bi tëdd na booy bi juddoo Saalum tëdd na am na premier ci biti am na premier ci xaatim am na premier ci Medina am na premier ci Euguissou Diop ah xaatim génn na doomi Toubatin bi génn na doomi Kéba Dieye bi génn na Saalum Saalum bi génn na xaatim génn na doomu Kéba Dieye ji génn na waaye doomu écriture di génn na xaatim génn na ki nga xamante ni xaatim jockey bi ko war di jockey principal di Momar Dieye raw na grand prix chef de l' état moo ngi noonu di ñëw alaaji Mata Momar Dieye raw na grand prix sa gars yi dawal nañu gars yi dawal nañu gars yi dawal nañu gars yi dawal nañu gaay daw lañu Khatim, khatim oh ah! la ilaha illallah def len dank def len dank professeur nuyu ngi lay fay ko Mbacke di contane bu baax di sante yalla bu baax gis ngeen ni mu demee waaw écurie Lamba Fall wax dëgg yàlla macha allah di féliciter le capot Omar Bawo Junior mi nga xam ne mooy PDG écurie bi ak liggéeykat yëpp Adam Baaw ak ñi mu àndal ñëpp di félicité sama bopp di félicité Dame Fall ma dendal muy porte bonheur ndax boobu léegi maa ma toogal na baax rek muy baax waaw di nuyu Samba Ndiaye gars yi Lamp yi ma toogal yëpp maa leen nuyu leen ziar leen jox seen wàccuwaay di wax ni kontaan nañ trop nag ko kontaan nañ ci yow vraiment li ma la waxoon bu dimanche dinaa wax kon tey wax kontaan nañ baax daal yàlla yàlla dolli jàmm ñëw nañ ci ak chef de grille yeeg ñëpp maa ngi leen di ziar équipe lamba far ak booy Thiès seen mobilisation gis naa ko ñi nga xam ne ñoo ànd ak man tàyyi wuñu waaw leen nuyu daal leen ziar leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla nag yàlla na ndam yu bëri tey ñu gis ni rawante bi nga xam ne say sookay rawante na ko ndax boo xoolee arrivé bi dafa ndóog arrivé bi nga xam si ne mooy ci trois ans yi diggante Tawfekh ak Arafat tey ñu ñëw ñu waat ko ci li nga xamante ni mooy groupe bi ñëw dal ci kaw ki nga xamante ni mooy xaatim tey lan ngay wax sooke aw rawante bi nga xamante ni rawante waaw jockey yi waaw macha allah nañuy rawante rek tey sedd bu kenn def infraction rawante rek ci yoon ku nekk jël sa wërsëg parce que loolu mooy doxal course bi maanaam mu a benn problème waaw Abdourahim nag fasu ndaw la daa wane woon ne lii quoi ren gis ngeen aussi mooy loolu yaa ma gën a xam waaw mais rawante trois ans itam gis ngeen ni mu demee diggante Abdourahim ak Arafat dimanche passé Arafat moo ko raw dimanche bi Abdourahim moo kii Tawfekh moo a di kontaan ci moom di ko wax ne mention spéciale euh, li mu mën mi ngi koy def wut ay fas yu baax mettre ko suñ disposition ñun ñuy defar di rawante ku ñëw jeudi ci joor gi heure yi ñuy ak li ñuy liggéey ci joor gi Adam Bawo parfum bu ñu rawee du bett kenn macha allah lambu no gars yi nañu tey dimanche tey ñu ngi fii tey de oh, naaru góor yi jóg nañu naaru góor yi jóg nañu Lat Fatim door nañu ko mu génn waaye ak laaw ànd nañu tukki o oh, nday faama deer gunge ne leen laaw ànd naak Lat Fatim ña ngi te wiraasu saxir caam yi waaye ne gis naa Amine dem na ci gannaaw moog dina kan moo génn nii o oh, ki nekk ci gannaaw Maguette Diop moo nekk ci gannaaw la la Lat Fatim moo nekk ci kanam waaye gis naa façon nga xam ne mooy Maguette Diop waaye gis naa façon nga xamante ni mooy jay naa Alaaji Matar Gise laaw génn na ba léegi laaw mi ngi ci kanam Alaaji Matar Gise waaye gis naa deuxième position Lat Fatim laaw ba léegi mi ngi ci kanam ma jaay ka jëka moo ko waar Alaaji Matar Gise laaw génn naa waaye Lat Fatim daaru Khoudoss ñëw na tiim ko ak dara yënguwul waaye tey maa ngi gis Ndeye Fama Der ñu ko téye quatrième position waaye maa ngi gis euh, Diof Yor ñu ngi ko cinquième position waaye maa ngi gis Medina ñu ngi ko bàyyi sixième position ak Mohamed Dieye mi war xaatim léegi waaye gars yi si des yëpp ñu ngi waxtaan def premier deuxième troisième lewal noctambile tey gars yi wéere nañu waaye Mamadou Gadiaga mi ngi lang ba léegi ba loxo yaa ngi fees dell dell dell dell loxo yaa ngi fees dell dell moom Mamadou Gadiaga mi ngi téye façon nga xamante ni mooy laaw ba léegi laaw nekk ci gannaaw waaye maa ngi gis Lat Fatim waaye maa ngi gis façon nga am mooy Dieyna maa ngi gis Medina ci biir groupe bi maa ngi gis Dalinkoor Alaaji Matar Gise ah, laaw génn na laaw dawal nañu ko Lat Fatim dawal nañ ko oh dawal nañu jëy naa doomi de soleil de minuit bi dawal nañu jëy naa oh gars yi dawal nañu ndey faama deere ngi taxaw quatrième position waaye Mamad mi ngi lang ba léegi gars yaa ngi lambu oh Daaru Saama ci gannaaw Daaru Saama jiital fas yi Daaru Sam day déglu nee na lu waay bàyyi ma yow waaye wa ngi cëppeelu seen kanam ba léegi di waxtaan mu ngi ca casse de tout petit ba Mamad Gadiaga war na fi Medina am fi premier war na fi Ndama Ndeye Fama Der am fi premier Mamad Gadiaga génn na écrit Saxir génn nañu gars yi dawal nañu Diofior ñëw na wuti dépense jot na wuti waxtaan jot na oh, tee nañu oh, oh, laaw génn na laaw génn na laaw génn na gars yi dawal nañu gars yi dawal nañu laaw génn na laaw génn na ah Ngone Latyr Ngone Latyr dawal nañu ko Saliou Kobar dawal na Ngone Latyr Kobar saamaane ak Dado mu ngi ne la doomi Birane Kobar bi dawal na Ngone Latyr ñëw na doomi Soleil doomi nuyu bi na oh gars yi dankaloo nañu oh laaw génnaan na oh gars yi dawal nañu laaw oh gars dawal nañu oh Major lañu dawal Major lañu dawal Major mu ngi noonu ci kanam Major deuxième position laaw. Médina Médina laaw laaw ba léegi mi ngi ci kanam El oh, ngi daw oh gars yi dawal nañu Masor oh sa écrit saxir écrit saxir Masor Masor Masor premier. dama man ngaa raw laajal booy bi ko war dama ni ko indi fasu caaxaan du fasu mag tey daa ñëw pour raw barki Seydina Mouhamed. duñ ko may dara daa ñëw pour raw tey parce que loolu luñ def ci moom la waaw. nañu rawante na jël ay matuwaayam na jël ay matuwaayam na jël ay matuwaayam parce que lii ki xew fii image yi buñ ko zoomé dina leer nañ Sidi Fall si boobu mooy jël masoor coupé ngoon la latir ba bi gàddi toog nii signalé lépp dafa leer nañ image yaa ngi fi ñëw naa si moom nag def sama réclamation sama réclamation dinaa na ku ne rawante sa wërsëg dimanche passé bi ma leen dawal ñu jox ko wërsegum su ko neexul mu coupé sen kaw mais dama nako ku ci rawante na nga rawante yoon do la len wax kon ñom war nañu xalal lool sen ay jox ñuy def lool li ñu def ni rafetul ay tension lay inte ken xaar ko ci ñom boo amé lool leen sensibiliser ñom ñom joxe lool leen wax ñu gëna a sen togaay parce que li ñom lay indil problème ba yé yee na ci course bi te course ken soxla wu ci ciow ken soxla wu ci ciow nañ defaraat nañ defaraat togaay defaraat comportement yi li rawante fo ak réel ku ne sa wërse ngay jël ku ñu raw nga rus fas yi ñooy daw fas ñooy daw ku nekk li nga liggéey tey ma ray la amul fenn rawante lañ wax mais rawal ci en bonne manière ñu xam ne yow raw nga raw raw bu rafet loolu lañu leen sante